asalaamaaleykum wa rahmatullah waa Lu Xew TV maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di yu tous les internautes laa qui nous suivent waaw ñuy ñëw wax euh, à propos de des arnaques là qui se passe euh, sur l' internet man de naa ne nit ñi léegi il euh, devait être assez averti war nañoo yeewu bu baax a baax a baax parce que kuy déglu tës ak xalaas di nga dégg yu bari lii daaw xaw ma daaw jéeg amoon na fi ba nit ñi wax ko ba bàyyi mais ñoom ñu sonn du ñu tàyyi bu ñu demee ba nit ñi fàtte rek. ils reviennent au galop moo tax nit ñi nag ils doivent être assez avertis pour bañ a nangu façon ndax yi waaw ndaxte dafa am loo xam ne logiqueul ñëw rek demander la ami ne la je euh, xaw ma fan quelque part en Europe il faut que les bagage transitent par euh, Cameroun loolu ay arnaque la nax la parce que war nga xam ne yow bagage fu mu jëlee jóge ci monde bi surtout léegi war na mun a ñëw à bon port léegi loolu amatul ay intermédiaire jaar kii pourquoi pourquoi passer par le kii et ne pas atterrir au Sénégal dafa am loo xam ne boo dee xalaat tuuti rek di nga xam ne lii ay xeetu nax la te même fii au niveau du Sénégal da ngay gis ci euh, les opérateurs yi fi nekk duñu du cité seen tur parce que kon ñu tooñ leen xëy un beau jour wala ne la tu as gagné de millions il faut que tu donnes temps pour nga mun ci jot bari na ñun ci nax ñëw ne la waaw man fii la opérateur tel la dañ la ciblé dañ la choisir tu as gagné bu la benn wari jotee dama la déposé fa cinq 500000 300000 gagné nga frigo gagné loolu moom nit ñi xam nañ ko am nañ ñun ci nax bu dul benn du ñaar les gens doivent être assez avertis pour ne pas tomber dans ce piège là de Facebook il faut faire très attention parfois dafa am ko jigéen koo xam ne profil lu jigéen lay affiché ñëw demandé la ami nga foog ne jigéen la mais buy conversé ak yow commencé di la yónnee ay ojo rek da ngay xam ne kii du jigéen góor la wala nga xam ne leneen la bëgg moo tax les gens doivent être assez avertis ku la demandé ami boo ko xamul ne l'accepte pas mais tubaab mooy lan mais xale yu jigéen yenn yu aussi du ñu dañuy gis tubaab bu kii rek ñu ne ah man de tekki naa sama problème jeex na bu ñu yàkkamti ba bëgg a dugg ci loo xam ne jaaduwul parce que nit ki wërsëg du maxe li sa chance ak sa wërsëg bala ngay dugg biir suuf di nga ko am c'est pas parce que c'est un tubaab qui te demande en amitié rek nga ne naa ko accepter il faut se méfier de ces gens c'est des arnaqueurs ay dóorkatu marto lañu te dee leen déglu tës ak euh, xalaas di xam ni xew ci dëkk bi yii yëpp amoon na fi dañ ko doon wax nit ñi war ci def attention comme tu l'as si bien dit gis nga internet dafa ñëw mu mel ni benn euh, garab bu ñu jox rek sans sans sans notice xamuñu nuñ koy utiliser dañuy tâtonner rek di mbëkk di dóor ba ker ba ñuy kii moo tax comme nag xamuñu nuñ koy utiliser correctement il faut faire très attention très Facebook ku la demandé ami boo ko xamul même bu amee profil lu jigéen il faut pas se fier euh, aux apparences parce que dañuy wax noonu rek fekk au fond ay góor lañu bëgg la manipuler bëgg la def looloo xam ne kenn xamul lan la naan la dugal feek kaay fekk ma feek boo ma joxee lii nangam yooyu yëpp nañ ko éviter bu ñu bëgg am jëkkër wala ñu bëgg a tekki ba tax ñuy dugg tomber dans certains pièges loolu buñ ko mës a bu ñu ko mës a def. sa qui est des voyages gis nga voyage yi léegi. ñëpp xam nañ ci lu bari l'expérience à démontré que lu ci bari ay nax la dañuy ñëw jaay la naar yi boo ñëwee premièrement li ñuy jëkk a def mooy ils prennent tout tes pièces pièces moom dootoo ko yorati téléphone dañ la koy tere nga nekk ci kër gi di liggéey ñu lay dóor léeg-léeg sax ñu lay abusé ah di dal sa kaw xale yu góor yi yooyu yëpp def si am ba nga xam ne xale yu jigéen yi nañ gëm seen bopp te toog te xam ne toog Sénégal di taxañ caaf di jaay wala nga tàngal café di ci am euh, au moins bénéfice su 500 francs par jour c'est plus rentable que d'aller ailleurs foofu et puis euh, salaire yi ñu lay promettre du dëgg da ngay dem parfois am na ci ñoo xam ne liggéey nañ fa ba génn fa ñu dóor leen ba ñuy bëgg a dee fay sax def ñu leen ko day fekk ki la fa yóbbu ah empoché na xaalis bi yëpp ñu jaay la fa comme jaam yow dañ lay tëj il paraît que doo génn di la dóor loolu yëpp daal man je préfère rester dans mon pays boo toogee fii sa dëkk bu midee nga añ sa ci bu jën yaag sa njaboot naan sa attaaya bu dee da ngay attaaya di jaay boo ko defee kaas fukki dërëm dina jar nga def gerte caaf dina jar nga jaay xaal wala mango wala les fruits de saison dina jar bénéfice boo ci am bu dee deux 2000 francs par jour mu lew la doom nga dem tëddi sa coté au côté de tes des sien sa kër yaay sa kër papa moo ëpp njariñ mais liñ leen di miroiteloo mirage la amul dañ leen di ndax naan boo demee tu as un salaire de 500000 nga ne ah man de bu ma demee tekki naa naa def li surtout man man jigéen ñi ma ci gën a metti parce que jigéen yi dañ leen di abuser di leen dóor di jaar seen kaw lu ne lañ leen di def ah, naar yi dañu xaw a soxor dañu xaw a soxor boo fa demee même en Arabie Saoudite les gens qui sont là-bas souffrent xale yi nañu jéem a euh, kenn bañul tukki parce que tukki cër la bu ko yàlla tuddee di ko am. mais dëkku naar yi moom nañ koy éviter na ma yàlla baal dëkku naar yi daal li fi xew parce que en Europe ay Italie France Espagne wax dëgg yàlla même si y a euh, léeg-léeg euh, ay ay problème mais àggul fii di tëj di dóor rek ay ay di la abuser yooyu moom wax dëgg yàlla amu fa mais dëkku naar yi li fay xew c'est extraordinaire moo tax suñu doom yi ñu ngi leen di sant ñaan nañu bàyyi dëkku naar yi dëkku yi baaxul ñi fa dem yëpp ils ont eu des wax dëgg yàlla moo tax daal nañu toog fii Sénégal luñ fi mën a liggéey ñu liggéey ko ndaxte li ñu war a am bala ñuy dee bala ñuy dugg bi suuf dinañ ko am man daal c'est le sa conseil que je leur donne tukki tekki baax na mais pas dëkku naar yi dëkku naar yi moom wax dëgg yàlla la fay xew doy na waar te sa moroomu sénégalais moo la fay jaay ne la euh, je t'amène un esclave bu ko defee yow bu ñëwee tu la prends comme tel doo ko teg nit doo ko teg kii doo ko jaarale yoon loolu yëpp nañ si bàyyi xel ma leen di remercier bu fekkee ne j'ai eu à heurter la conscience de qui que ce soit ma leen di euh, balu àq bu baax a baax a baax di leen tàggu